الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله يا همة سيقي اغدر لنا بعاص المقدر ولتقتفي بنصرة تقتي لنا بزفر mbokki téléspectateur TFM religion ñu ngi leen di nuyuwaat di santaat di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di jiital ci nuyoo bi suñu xulafaa yu tedd yi ah, di ci jiital Serigne Cheikh Tidiane ñas ca Medina Baye di ko nuyu ak imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ak suñu sëriñ Seydi Ousmane Ali Cissé bu ko defee itam ñu dem Medinatu Léona Niassène di nuyu kalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Oumaymi Niass ñu dem Medinatu Touba di nuyu xalifa bu tedd ba di sëriñ Muntaxa ak porte-parole ba sëriñ Basiru Abdu Xaadar ñu dem Midinatu Tiwaawan di nuyu njabootu mamalaaji Alaaji Si xalifa bu tedd ba Sidi Boubacar di sëriñ Mbay Si Mansour ak sëriñ Maodo ak sëriñ Pape Malick ñu ngi di nuyu bu baax di leen siyaare ak mboolem xulafaaw yu ne ci réew mi ñuy dem Njaasaan ba ak fii ci Ndakaaru ci Laayan fii ci Yoof ñuy siyaare xalifa bi ak doomi soxna yëpp jàngkat yi borom xam-xam yëpp ku ci ne ñu ngi lay nuyu nuyoo booba itam ñuy jaar ci borom kër gi nga xam ne moo taxawal lii di TFM religion di Youssou Ndour di ko nuyu bu baax di ko ndokkeel ci liggéey bu rafet bi mu taxaw ci bi taxawal ci réewam bu ko defee rek ñu ñëw seen émission leeral ñëw ci prime alquran mi buñ paree ñëw ci laaj ñu ngi tolloon ci suratul furqaan yàlla mu ne waskur na nga fàttali maanaam nit ñi ci alquran aadan nit yonent yàlla hóod yi wa samuuda na nga fàttali nit ñi ci alquran nit yonent yàlla saalix yi yàlla ci alquran da ciy fàttali fàttali lu baax la yonent bi ñaare buñ ko weddee rek yàlla ne ko am na ñu la jiitu woon maanaam weddi woon nañ la kon weddi buñ la weddi bum la naqadi yonent yàlla hóod jàng na suratul Hud wa ilaa haadin aqaamu hudan maanaam yàlla yónni woon na ko ci ay nitam nit ñi ñu nga dëkkoon ci benn beeñ ñu koy tuddee al ahqaaf moom lañ koy tuddee mooy foo xam ne dafa am beñ ca yaman bu ko defee ñuy weddi ko nanguñ koo gëm ñoom xam nga lu leen alagam ngelaw yàlla ebal ci ñoom ngelaw ngelaw loo xam ne sarsaarin ngelaw loo xam ne dafay riddi mooy ñëw rek saqara alayhim sabal layaali wa samaniyati ayaamin usuman ngelaw moo leen alag moo tax yàlla dafa bari ay soldaar yàlla boo ko fi tooñ léegi ngelawam rek bu ñëwee nga alaku ndax doomu aadama amul kàttan bu ko defee itam ñoom nag ñoom nit yonent yàlla maanaam xóot yi bañ gisee ngelaw li rek dañoo waxoon ne li daa aw niir la bu ñuy tawal moom la alquran di wax ne fala maa raawhu xaaridan mustaqbile awdiyatoom xaalu asa aridun mumtiruna ñu ne lii daal niir la yàlla mu ne de bal huwa mastajaxtum bii réewun fi asabun alim lii daal li ngeen doon yàkkamti la maanaam mbugal mi moo egsi kon yàlla am na soldaar boo xam ne moom la ñuy tuddee ngelaw mu ngi noonu bu ko defee saqara alayhi sabal layaali juróom-ñaari fan mm, yàlla tàggal ko seen kaw ñoom ñoom ñu ala kon doomu aadama amul doole doomu aadama benn waaye daf doon wax ne doomu aadama dafa ñàkk kàttan muy wax ne mu ne doomu aadama bu la yéemee rek maanaam mu ne ku la yéemati rek ci xam-xam ku la yéemati ci alal lu ko mën a faagaagal rek mu ne jongoma la jongoma daal moo moo moo maanaam moo mën a faagaagal léegi góor goo xam ne dañoo wax ne am na kàttan ci jaamu yàlla wala am na kattan ci wéetal yàlla ci ci ñàkk kàttanu nit rek laay ñëw mu ne jongama boobu li muy foor foor ki ko ki ko ki ko mën a daaneel mu ne mooy nelaw nelaw moom loo rafet rafet maanaam sa xamul sa taar nelaw bu ñëwee rek dafay dafay dafa dafay dafay not jongama mu ngi noonu mu ne itam nelaw li ko ëpp doole mooy soxla doomu aadama amee soxla rek nelawam dana wàññeeku koo gis nelawam bëri rek soxlaam dafa néew mu ne nag soxla maanaam li ko ëpp doole mooy mbooloo soxla lu mu bëri bu ko mbooloo bokkee rek soxla bi dootuñ ko yëgati dafa doon wax doomu aadama ñàkk dooleem di wax ay ay ay ay tatawaram mu ngi noonu nit ñàkkee doole mu ngi noonu kon doomu aadama ndeke nit yonent yàlla aadi yi maanaam li leen alag ngelaw rek la leen yàlla alagee kon nag na nga muñ ci Xuraysi mii di leen ñaawal Namrud ba mu weddee li ko alag benn yoo moo dugg ci noppam bi noonu la alag ko mu ngi noonu moo tax yàlla mu ne maanaam na nga fàttaliku nit yonent yàlla hóodi wa samuuda ak nitu yonent yàlla saalihu yi yàlla saalihu yonent la ci yonent yi yàlla da koy yónni woon ñu ne ko boo buggee ñu gëm la foog doj wu laamaar lu wale foog nga fexe rek maanaam gëlëm génne fa yonent yàlla saalihu di ñaan di ñaan ba doj ba génne benn gëlëm goo xam ne dafay ŋaax ba gëlëm nga ñëwee yonent yàlla saalihu ne leen gëlëm gi ñëw na xam nga ñoom dañoo wax ne pour ñu gëm ko doj wa mu génne ci gëlëm imagineel doj nga mën a ñaan yàlla ba gëlëm man cee génne loolu loolu du caaxaan ah gëlëm gi ñëw ba léegi rek ñu koy weddi moo tax laaj miracle amul njëriñ léeg-léeg ngay wax ak nit sax mu la ah yow daal boo yàlla tawal xeer boo yàlla tawal doj képp ku koy wax rek yéeféer la maanaam xamal ne loolu pas-pas yu la ndax ndax ñi ko daan wax yonent bi in kaana saa waaqu min indika famtir alayna hijaratan min samaay awatina bi asabin alim loolu pas-pas yu tawal xeer wala tawal doj ndax ñi yàlla ba mu yónnee yonent bi xuree si loolu lañ ko wax bu dee li ngay wax dëgg la na na sa yàlla ji wàcce ay doj ci asamaan mu ñëw mu ngi léegi nag ba gëlëm gi naqati gi ñëwee gëlëmu yonent yàlla saaliw gi ba mu ñëwee yonent yàlla saaliw ne leen laa sirbun walla kum sirbun yow ma maxlum maanaam gëlëm gaa ngi nii tey da ngeen di root yéen rek ay naan am na bis boo xam ne nag gëléem gi ngeen di rootal mu naan gars yi weddi ko ne ci moo bugg lu yomb xanaa gëléemam ji buur la mooy buur mooy bu mi loolu kenn du ko fi nangu ñu weddi ko mu ne ko mu ne bu leen rey nag gëléem gi mukk benn waaye ñëw ca dëkk ba mu fassiroon yi ko koy nettali am na ñu ne xudar la tudd bu ko defee mu ñëw ñu ne ngoro la loo da doon ngoro ca dëkk ba ngorokat nag moom bu amul bu poosam feesut lu ñu wax rek dafay wax ne ñeme na ko pour bu gorom yi gërëm ko ñu wax rek cool yi ñu ne dëkk bi lu fi xew mu ne lan la làng maanaam garam place ñu ne benn yonent daal bu tudd saaliwu moo fi am benn gëlëm ne tey ñooy naan suba gëlëm gi mooy naan daf ko buur mu ne ah loolu de du daal xaar bu subaa rek ma ray ko gis nga ngoro ko yi dañuy dëgër fit lu ne danañ ci dugg léegi-léeg nga gis kuy ngoro ndeysaan dina dige lu nekk loo mu ne garaaw mm, kim kim kim bëgg rek moo tax mu ne garaaw ba mu xëyee rek mu dem maanaam ray gëlëm gi ba mu koy ray gëlëm gi sab ñetti sab sa saaliw génn ba mu ñëwee ñu ne ko waaw mu ne lu xew ñu ne ko sa gilem gi noo ne bu ñu ko ray ray nañ ko ematuñ ci ñàkk koo jox mu naan sa waaye ray ko mu ne gilem gi ñaata sable la sab ñu ne ko ñett mu ne ñetti fan leen ci dese léegi nag ñetti fan yi bët bu set dafay màndarga léegi-léegi mu fas yoroon yi ñu ne ku xëy gis sa morom ñuul kukku nga ne ko waaw yow sa kanam gi nu mel mu ne kanaa xoolal sa bopp beneen fan ba ñu gis seen xolem yi xonk coy nga ne ko waaw diw yow sa kanam gi du ko xonkal mu ne kanaa xoolal sa bopp beneen fan ba seen kanam bulo wala mu soow ba ñetti fan yi matee ñoom ñëpp maanaam ci lañ alaku kon nag ñoom ñu doon weddi yonent yi foofu lañ mujj alxuraan nag di ñu ko nettali pour ñu man cee maanaam xalamee ci lu bari ndax histoire bu ñu la koy nettali pour nga mën a bàyyi sa xel maanaam di weddi dëgg lépp lu nekk ci dëgg rek na ko dëggal képp ku dul saxal dëgg rek foofu ngay mujj moom la alxuraan di wax ne wala si jaa bi siddiqi wa sadaqa bi mu muttaqun yàlla mu ne ku andi dëgg ku ko dëggal rek yow moom yéen am ci dëgg ja gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la andi woon Aboubacar dëggal ko yàlla ne ulaayika humul muttaquun kon dëggal dëgg ragal yàlla dafa bokk ci mandargay ragal yàlla weddi dëgg nag maanaam dafa bokk ci ma doodal li li nga xam ne yàlla andi na ko kon noonu lañ ala ko ñoom ñëpp ba ñetti fan matee ñu dee moom la alquran di nettali moo tax yàlla mu ne wa samoodu nit yonent yàlla samoodu yàlla mu ne alag na leen waa saabu rasi ak boromi teenee de asaabu rasi boo demee ci mufassiroon yi ñu ne maanaam yonent yàlla Suayb bu la yàlla yónnee woon ci benn dëkk ñoo xam ne dañ daan jaamu teen ñu bañ ko ñu weddi ko dañ daan xëy rek bu ñu xëyee dem tiim ndox ma benn bis rek ñu tiim ndox ma di ko jaamu rek maanaam affaire ba màbb ñoom ñëpp ñu daanu ca pindam teen ba ñu alaku noonu lañ koy firé ñu ne yonent yàlla Suayb bu wax yu bëri nag lañ ci wax am ñu ne déedéet asaabu rasi benn dëkk la boo xam ne dafa nekkoon ci yaman mu ngi nii ma tiim ci téere bi wa wax qaryatu bi yaman nit yonent yàlla samood yi bañ alakoo ñi fa desoon maanaam ñoom la ñu tuddee asaabu samood yàlla dafa yónnee woon ci dafa yónnee woon ci ñoom ab yonent ñu weddi yonent bi ray ko yàlla alak leen ñenn ñi ne asaabu raxsi mooy asaabul axdud bi ngay jàng a annaaru saati waquur mooy asaabu raxsi ñeneen ñi ne déedéet ci mufassiroona yi dama lay indil yow mi nga xam ne da ngay gëstu ci xam-xam la ca borom xam-xam yi wax ma taxaw ci ndax loolu mooy cosaanu xam-xam ñu noonu ñenn ñi ne yonent yàlla bu ñuy tuddee ansala ibnu ibnu safwaan yonent la ci jamonoom yàlla def ko yónni woon ba ko yàlla yónnee nag ñu weddi ko yàlla nattoo leen maanaam picc yoo ay picc yoo xam ne yu mag lañ picc yoo xam ne dañoo am couleur yu bari picc yu mag yoo xam ne dañoo am couleur yu baree baree bari picc mu ci ne indiaale nga couleur bu bari bu ko defee nag ñu ñu tuddee picc moomu maanaam ñu koy tuddee xanxaa mooy picc moo xam ne dokk gi dafa gudd moom la ñuy firi xanxaaw mooy xaq dërëm jàng nañ ko ca daaliya piccam xanxaaw bu bu ko defee nag dokk ji moo guddoon ñu koy tuddee xanxaaw li li li tuuli xunxaa picc moom ci doji la dëkkoon waaye nag picc la moo xam ne da daan fëkk xale xale bu mu gisaan rek daf koy këf maanaam euh, ñëw rek fëkk ko matt ko xale ba dootuñ ko gisati ah xansa la ba mu ñëwee ñu tawatal ko loolu ne ko ñun daal yàlla daf ñoo natoo picc moom te liñ ko weddi woon moo tax mu am ci ñoom yërmande ñaan picc ma picc mi sax cosaanam amatul xan kaa amatul ci àddina ñenn ñi ne yonent yàlla noonu moo ko ñaan ba amatul waaye daal picc ma nga la daan cëpp xale yi amuñ ci ba ba mu ko ñaanee picc ma dem amatu ñoom ñu gannaaw loolu ñu rey yonent ba moom mu ngi noonu bi ñu safaan yàlla nag moom la ñuy tuddee asaabu rax si mooy boromi teen ñu alak ca teen ba ñu noonu kon noonu la ci mu fassiroon yi wax ci wax yooyu mooy asaabu rax si ñenn ñi ne suaybu ñenn ñi ne ansala ñenn ñi ne asaabul axdod moo tax yàlla mu ne waa saabu rax si maanaam fàttalikul borom ak teen ba ñi nga xam ne dañ daan jaamu ab teen kon ndekete yow doomu aadama ñàkk yàgg naa ñàkk faayda ci jaamu lu dul yàlla teen nuñ koy jaamoo ab ay ay ndox nan ngay ñëwee di tiim ndox rek di ko jaamu mu ñu noonu ci jamono Seydina Omar Égypte dafa amoon benn dex bu fa nekkoon at mu jot rek dafay yool ba àgg ci dëkk bi yàq fa lu bari ñu wax ko Seydina Omar Seydina Omar bind benn leetar ci dëggum ga ne ko daal bu dee yàlla rek mooy tax ngay daw yow ndox mi dawal bu dee nag yàlla taxatut maanaam sa ndox mi na ko téye yow niilu misra ndax Égypte niil moo fa nekkoon Omar jox ko maanaam buuru misra ki ki gouverneur bu nekkoon misra kon ko dama sànni ko ci géej ga loolu la bindoon ci leetar bi ba mu ko sànnee ca géej ga rek la taxaw Omar ne benn xale bu jigéen dootuñ ko jël di ko fa yóbbu ndax da daan ñëw ba ci dëkk bi yàq seen kër yi buñ ko sànnee xale bu jigéen rek dafay taxaw moo tax affaire yu tuur yi daanaka foofu la jóge am na ñoo xam ne bu leen yooyu daanee buñ saraxawut soow duñ jog am na ñoo xam ne bu leen yooyu daanee buñ demu tànk sa ndoxu géej ga waaye yooyu yëpp da ko war a dindi sa bopp ndax loola du lislaam fexe gëm téere bi yàlla bi yooyu yëpp ay mbiri jinne laak ay mbiri rawaxaan te fu mu lay yóbbu rek du du lu baax mu ñu noonu affaire yi mën naa sax yóbbu la ba yóbbu la ci mbiri cedd mu ñu noonu kon niil misra noonu la taxawee kon ndeke am na ñu daan jaamu maanaam teen yàlla moo ko nettali ci alquran mu ne wa naa ak ay xeet bayna saalika diggante loolu kasiran yu bëri diggante aat ak asaabu si am na xeet yu bari yu fa jaar wa kulun ku mu ci ñoom daram naa sadd nañ loo ñeel la am saalan ak ak léeb de wa kulun ku mu ci ñoom tabar naa alag nañ leen tibran ak alag de yàlla mu ne ñoom ñëpp alaku nañ baatu tibru ci arab tam dafay fiir wurus xaalis ak wurus loolu jàng nañ ko ci maqaamaatul arira téere bu riis boobu di almaqaamu al arira mu ngi noonu bu ko defee maanaam tibru dafay firi wurus danay firi xaalis ci araab mu ngi noonu léegi nag niñ leen alagee nga xam ne dara nekkatu fa dafa mel ni wurus woo xam ne da nga koy jël dugal ko ci safara mu defar ko ba mu mm, rafet ak or boo xam ne danga nga koo dugal ci safara ni mu koy def noonu maanaam ñoom noonu lañ leen alagee moo tax mu ne wa tabar naaw tab eh, tadbiran comme ni safara di def wurus kon tibru dafay firi wurus ñëw na ci maqaamatu arida mi ngi noonu lam yabqi saafin wala musaafin wala mahinun wala muhinun wa fil masaawi bada tasaawi fala aminun wala saminun maqaama téere bu neex la al arida la boo xam ne bu jara jàng mu ngi noon kon yàlla mu ne ñoom ñëpp alaku nañ lu leen alak rek ñàkk dëggal dëgg mu ngi noonu képp koo xam ne gis nga dëgg ne doo ko dëggal ah alkaandi ñeexal na la kon lu nekk nekkati dëgg rek nañ ko dëggal yonent yàlla liñ indi woon dëgg la dëggal ko mag ñi liñ indi woon dëgg la dëggal ko waaye da fi gis koo xam ne ci réew mii nu muy sonnee ci mbiri mag mag ñi nangam seen jàng nangam bay sax seeni i yi am na ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy critiquer wëy yi mag ñi wallaahi mënoo leen a critiquer ñoo la raw fuuf ñoo la dàq jàngu fuuf am leneen loo xam ne am nañ ko te amoo ko muy lan muy taqwa fa lañ la da nga gis koo xam ne liir na téere yu bari waaye dara man tu wax sax benn jumla arab boo xam ne weer na mag ñi nag am na téere yoo xam ne sax am na jamono ji njëm seen jamono amutoon waaye ñoom seen ragal yàlla tax noon liñ njëroon xam nañ ko luñ njërit tam xamoon nañ ko alxuraan waxoon ne wa man um, in tattaqu laa yaj'alkum furqaanan wa man yattaqi laa yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yaxtasib kon yow mi fi nekk dem jàngee ci beneen réew di di di weddi suñ mag ñi luñ wax nga ne du dëgg buñ ne xasida nga ne nangam amut buñ ne wasifa nga ne nangam amut buñ ne gàmm nga ne bidaa la buñ ne màggal la nga ne bidaa la waaye dugaale nga ci aaya bi wa kullan tabarnaa tadbiran ndax loolu yëpp alquran la loo xam ne ci alquran lañ ko teg lépp amul ci dara lu génn alquran salaatu ala nabi laa ilaha illallah astaghfirullah loolu ku ku wax ne bidaa la kon alquran mooy bidaa képp kuy weddi dëgg rek wa kullan tabarnaa tadbiran maanaam li daloon niti yonent yàlla haadi ak niti yonent yàlla samood yi ak asaabu rasidan la dal kon nañuy dëggal dëgg ku dekkati ci dëgg nañ ko saxalal dëgg ji mu nekk mu ngi noonu yàlla mu ne wala kad taw romb nañ ñoom waa Makka ala xareetin ci dëkk ëllëti dëkk ba nga xam ne umtirat taweef na matara saw in maanaam taw boo xam ne bu ñaaw la mooy nit yonent yàlla loodi yàlla mu ne waa Makka ñu ngi weddi yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag nañ bàyyi weddi bi ñoom ñu ngi jógee fii Màkka di dem di di di dem saam di njëg ji di uti marchandise te gis nañ nitu yonent yàlla loodi fu ñu dëkkoon di Sadduum ak seen juróomi dëkk ya nga xam ne faay sa lañ daan daf di jëfi góor jigéen mu ngi noonu ñu ngi romb ci dëkk yi gis nañ yàlla nu mu leen tawalee ay doj la wàccee ci ñoom fa amtarnaa alayhim hijaaratan min sijjiil comme ni ko alquran waxee yàlla dafa yónne woon benn yonentu bu ñuy wax yonentu yàlla lóot ji maanaam nitam ñi ñoo njëkk a daf góor jigéen ci kaw suuf mu ngi noonu yii ñoo ko njëkk a daf góor jigéen ñoo ko njëkk a daf ñoom itam ñoo njëkk a daf maanaam di wattu sulu mooy wat genn wàllu bopp bi bàyyi ci kaw baaxul xale defoon na ko ci jamono yonantu mu ne ko watal lépp wala nga bàyyi lépp wala nga raase ko mu ngi noonu loolu ñoo ko njëkk daf ñoo njëkk a daf itam di maanaam di di di di garam di di ngalawal ci garam place yi dañ daan toog ba nit ñëpp toog rek am koo xam ne dafa ngalawal ñu xàqataay moom la alquran di wax ne wa taxtoona fi naadaakum munkara garam place de yéen a ngi ciy jaf lu bon nit yonent yàlla lool di ñoo daan jël lasper di lasper ay picc duñ ko defee dara di lasper ay nit nit yonent yàlla loo di comme ñoo daan itam di wattu sulu wat genn wàll gi bàyyi genn wàlli kon góor jigéen ñoom loolu moo doon seen mbir bu ko defee nag yonent yàlla lool dafa amoon soxna mu ngi tudd la am na ñuy bind waaxika euh, yonent yàlla loot mbokk yonent yàlla ibrahima bi di aaraan mooy moo maanaam moo ko jur léegi nag soxna si ndeke moom dafa ànd góor jigéen ñi yonent yàlla loot bu amaan ay gan rek dafay taxal bu taalee rek maanaam waa dëkk ba xam ne ay góor ñëw nañ ñu ñëw pour bu ko ànd ak ñoom ah yàlla ba mu bëgg a jeexal loolu ba leen di alak yàlla ebal ay malaaka malaaka yi nga xam ne ñoo ñëw di wax yonent yàlla Ibrahima ne ko danga am doom bañ bëggalee Ibrahima ba pare Ibrahima ganale leen nangu ñoo lekk ndax malaaka moom du lekk mu ngi noonu mu defal leen bi ijlin anisin eh, ñoom duñu lekk falamaara ay diyam comme ni ko alquran di waxee bu ko defee ñoom ñu bañ ne duñ lekk ñu ne ko daal ñun dañuy jël jëm ci maanaam nit yonent yàlla lool ñi fa lañ jëm bañ demee ñoom ñu dam yonent yàlla loot nag am gan jabar ji taal rek gaa yi ñëw ne ah maanaam sama sama jëkkër am na gan gaa yi bañ ñëwee yonent yi malaaka yi ne wax loot ne ko ñun dee duñ ay nit ay malaaka lañ li yëpp mu ngi koy nettali dañoo ñëw pour alak sa dëkk bi ñu ne ko tey mu ne leen déedéet suba mel ni loolu daf ko yàkkamti ñu ne ko alaysa sub abi xarib comme niñ ko jàng ci alxuraan fasrib bi alika bi xëti min al layli bu yow bu fajara rek damal ñu si des ñu alag leen léegi nag gaa yi ñëw ti yàlla loon ne leen ina aaw laay day fii falaa taf doon woy waay ñii sama gan lañ bu leen bu leen ma gàcceel ci ñoom gan gi ma am rek di góor ngeen da ngeen ànd moom xoola jëf ju ñaaw jooj góor guy ànd góor loolu lu ñaaw la bu ko defee nag mu ne leen sax bu dee da ngeen a bugg ma may leen sama doom yi aaw laay ba naati in kuntum faa'iliin sama doom yaa ngi ni bu dee da ngeen a ñu ne ko laqadaa limta maala naa fi banaatika min al xaqi xam nga ne ñun soxlawuñ waaye jigéen ñun ay góor la lañ soxla moo tax yàlla bu koy tudd rek dafay wax ne ataxtuuna faisa maanaam teef la muy jëfi góor jigéen lu bona bona bona bon la ñooñ nag la yàlla alak di ko nettali yonentu mu ne waa màkk ñuy romb loolu war war naa tax ñoom ñuy waaru ci yàlla alak gim leen alagoon mu ngi noonu ba ba ba loo demee ah, mu ngi noonu rek ak ak yeneen soxna ak ak ak ak mbokk ya benn soxna bi nga xam ne dafa àndoona góor jigéen rek benn doj ñëw dal ko ñoom ñëpp ñu xëy alaku kon góor jigéen lu bona bona bon la yàlla nañu ci yàlla musal lu fees dell la nag ci société bi ci jamono yonent yàlla loolu la amoon yàlla mu ne wala kadaa taw romb nañ ñëw waa Makka alaa qaryatin ci dëkk ëllëti dëkk ba xam ne umtirat taweef na matara saw in maanaam taw boo xam ne bu ñaaw la yàlla wàcce na ci ñoom ci doj de xaala fa maa qad bakum ayyuhal mursaluun xaala innaa ursilnaa ilaa qawmi lootin li nursila alayhim hijaara mu ngi noonu de yàlla dafa jël ay doj di leen ko roose di leen ko roose ba ñoom ñëpp ñu génn àddina bu ko defee borom bi mu ne afalaw yakun ndax dañoo nekkul yaraw naa di ko gis bu ñuy tukki di jëm saam ndax gisuñ waa dëkk boobu fi ñu tëdd ñoom ñëpp alaku nañ bal bàyyil nekk nañ ko sax waaye kaanoo nekk nañ laayer joona maanaam ragaluñ nu soroon ak dekki de yàlla mu ne xam nañ li xew yëpp waaye nag ñoom dañoo yaakaaru ne danañ dekk ragaluñ sax ak dekki mu ngi noonu bu ñu ragaloon dekk yu ñaari duñ ko def ndax ñu loo xam ne wax nañ la ne ñu ko doon def alaku nañ kon nag yow loolu war na la waar gis nga sax loolu mu ngi mel ni rek li xawoon Amérique xam nga onze euh, ci ci ci ci 2001 bi gis nga seen état bu mag boobu ni meloon comme ni doon la misaala ne la ah yow miy mbaru di rey dee di taxawal lu nekk ci àddina foog ne mantu daanu xoolal Amérique amoon nañ étage boo xam ne moo gën a maanaam gën a gën a gudd ci monde bi te gis nga bis dafa xee rek ba mbiram yàlla ñëwee dafa xee rek daanu mu ñu noonu ñu bari alaku ci léeg-léeg nga gis ko attentat yi nga xam ne dafay am ci àddina bi li koy waral rek li gën a bari mooy ay bàkkaar yoo xam ne dafay am ci nit ñooñu bu ko defee nag yàlla wane kéemtaanam léeg-léeg nga dégg suuf yëngatu na dëkku sàngam suuf nangam na dëkki sàngam ay milliers personnes yu bari ñu génn ci àddina loolu yëpp yàlla daf ñoo bugg a waar ne nañ dellu ci moom kon lim ñuy waaree bëri na li xewoon Amérique ca mille 2011 ca 11 septembre ba loolu comme ci ci ci lii rek kanaa gisoo ko seetaan nga ko ci télé yi gis nga ko ci journaux yi waa Màkka itam ñoom loolu jàng nañ ne loolu amoon na nti yonent yàlla looyu noonu lañ alakoor te taxuñ ñu jàjju kon nañ ñun nañ ci jàjjoo maanaam fu ñu gisati dëgg rek di ko saxal lii yëpp ñàkk saxal dëgg moom moo leen ko yóbboo ak itam dëgër bopp yàlla mu ne way saa raaw ko in yattaxizuunaka illaa huzwan waa ñoom dañ daan def ñoom waa Màkka bu leen yonent bi rombaan dañ koy ñaawal naan ahasal lasi baasallaahu rasulan di ko xem naan waa ji maanaam bu yonent bi génnaan bay julli ji wala muy dem nit ñi topp ko rek ñu ne xay kii Muhammad mi sallallahu alayhi wa kii la yàlla di yoon haasa la si baasa laaw rasulan pourtant yonentu xeebu lool ku xeebu nga koy wax yonentu moo gën a man ñëpp ci bind mu ngi noonu moo dàq ñëpp bu dee bu dee bind bu rafet la bindam bi rafet na yonent bi nekk na nit koo xam ne mbooloo bu mu taxaw moom moo fay sut amul dara loo xam ne mën nañ ko ko ayibal kon ñoom bon rek a taxoon ñu koy xeeb mu ngi noonu moo tax yàlla mu ne way saaraaw ko bu ñu la gisee in ye taq soo na ko déet ñu bu leen yonent bi rombaan dañ koy ñaawal ñu ngi naan haasa allazi ndax waa ji baasallaahu la yónni na ko yàlla rasoolan muy ndaw ki la yàlla di yónni in kaada kii dee kaw tuut maanaam la yuddilu naa danañu soppi an aalihatinaa walis ñuy jaam suñu yàlla yi ne kii lim bëgg rek mooy ñëw soppi ñu ñu bàyyi xar yi ñuy law lawlaa an sabar na maanaam buñ mënutoon a sax xalehaa ci jaamu xërëm yi konoon de danañ ko bàyyi waaye borom bi mu ne wa sawfa yi na waxtu wuñ jisee alaasa ba mbugal ma bis buñ jàkkaarloo mbugalam safara danañ xam man ak ankan anakan anakan addala moo sànko sabi leen ci yoon de kan moo nekkut ci yoonu dëgg de danañ ko xam de mu ngi noonu waa Màkka dañoo xeeboon yonent ba buñ ko gisee di ko ñaawal ndeysaan koo xam ne xeebi wut koo xam ne lu yàlla bind yëpp moo tax mu bind ko yow mi koy xeeb sax ci leeram gi la la yàlla bind nooruhu awalul wujjoodi wujjoodan fa huwa aslul usuli loolu nag bari na ci àddina bi léeg-léeg nga gis ndeysaan jullit ñi bu ñuy génn di julli ji wala nangam am koo xam ne mu ngi leen di xeeb ndax liñ doon def yonent bi rek lañuy ñuy def nit ñi gëm yàlla ñi jànkati diina yëpp maanaam nit ñi dañ leen a xeeb fi ne boo fi gisoon ab sëñ daara sax da nga koy ñàkkal faayda foo ne nekku ci dara léeg-léeg sax mu wax nga ne diw jàngut te fu pourtant moo jàng lu gën moom de dafa jàngu te kooku jàng na alxuraan ko jàng jàngoo di ko xeeb ci nit yi diine yi xeeb nañ leen ci yëre yi ñuy sol xem nañ leen ci kër yi ñuy dëkk xem nañ leen ci seen alal xem nañ leen ci seen xalaat xem nañ leen ci lépp moo tax nag bu ñàkkal seen bopp maanaam fayda buñ ko nangu mukk ndax dañ leen a xeeb liñ doon wax yonent bi naan ahasa lati baasa laahu rasulan léeg-léeg nga dégg ko waa ji mu naan la kii nangam kii nga xam ne amul dara amul nangam bu bu añee sax du reer bu ndekkee sax du def nangam amul sax oto bu rafet comme ni ma la ko waxoon ci émission yi passé te loolu jotewut ak ak nitu yàlla dara kon xeeb gi ñu doon xeeb yonent bi ba léegi moo fi des jànkati diine yépp gis nga fi ñu bari buñ jàngi alquran seen loxo jotu seen gannaaw ñu dem di takk soxna kenn du leen ko may te yonentu moo waxoon ne isa ataakum man tardaw na diinoo wa xuluqoo fan koo bu leen nit ñëwee di ñaan soxna koo xam ne maanaam gërëm ngeen diineem jikkoom rafet na mu ngi noonu mooy ko am jom nangoo liggéey na ngeen ko may waaye ñoom ñëpp lañ xeeb yëkkati borom xaalis yi li amoon ci yonentu rek moo fi nekk ba léegi comme li alquran wax léegi aasa lisi baasa laahu rasulan bu ko defee araayta mani taqasa ilaa wax yàlla mu ne moo wax yonent bi ne ko danaa la solo ñii maanaam jaamuñ xaram ñii seen bakkan la ñuy jaamu moo tax yàlla mu ne araayta danaa la solo araayta ndax duma la solo takk sa kooku jàpp na ilaahu yàllam awaawu muy bànneexu bakkanam ibnu abbas boo demee ci safaru tafasir nim mu ko mu ne naa baas mu ne kuy jaamu bànneexu bakkanam mooy dafa am benn waay boo xam ne danaan jaamu xeer bu téyee xeer bi Ibnu baas ko nettali dem ba ci kanam gisaat xeer bu gën a rafet mu sànni ko téyaat beneen xeer Ibnu Abbas mu ne bu demee ba ci kanam gisaat xeer bu gën a rafet mu sànni ko ne xeer wi laay jaamu bi moo gën a bees kook kooku bànneexu ba kanam lay jaamu waaye nag jamono jii nit ñi li ñuy jaamu li ci gën a bari mooy alal la ñuy jaamu bu dee bànneexu bakkan la jamono ji nit ñi danañ alal la ñuy jaamu alal mooy seen bànneexu bakkan doomu aadama yi jamono jii noo mën a mel ak noo mën a sant foo mën a dëkk foo mën a bokk loo mën a daf lum ñaaw-ñaaw boo amee xaalis ñoom dootuñ ko gisati araayta man sa ilaa awaa yàlla mu ne danaa la solo kuy jaamu bànneexu bakkanam waaye ma ne mooy kuy jaamu xaalis nit ñëpp xaalis lañuy jaamu wala matériel te matériel mooy xaalis mu ngi noonu borom xaalis yi seen saali bu ñuy añ nit ña fees fa dell loo wax bu dee dëgg la bu dee du dëgg itam danañ ko dëggal yaa da ngay gis sax koo xam ne ndeysaan moom daal uniquement dafay ñëw rek pour nettali borom xaalis bi yëngalu xew dëkk bi diw daf na nangam tal tal te li muy wax waaye ji sax laaju ko ko borom xaalis bi sax du ko nawloo boo moytul benn yoon sax la koy tontu um, rek la koy wax nekk ci lim nekk mu ngi noonu du ko faale ndax kee daf na ko suq ba pare kee moom mu ngi koy jaamu ngir xaalis ba mu ngi noonu bu ko defee itam information bu xew yow borom xaalis bi ñu amul di la dunguru danañ la ko wax kon ñooñ seen bànneexu la ñuy jaam mu ngi noonu bu ko defee itam boo leen doon manquil sax doo leen faale waaye dañ koy def ndam xam naa diw léeg-léeg nga dégg ku ñàkk fayda homme d'affaires sàngam sama xarit la dañuy jokkoo kooku xaritoo moom pour la xarit man de ma borom xam-xam yi ñi jàng alquran mu fassiroon ay tafsirkati alquran yi xaritoog ñoom ñoom a gënal xaritoog homme d'affaires yi dëgg rek laa mu ngi noonu waaye da ngay gis diw sama xarit la tudd diw sàngam ku siiw yow xaritoog moom alalam ja ngay xaritoo ndax bu ñàkkoon rek loolu dootu la ci fekkati xam naa ko mu ngi noonu wala nga bokk ak moom photo di ko tiitaru te loolu dara boo gëmee sa bopp gëm yàlla yaa ko gën képp ku jox yàlla jox yonentu mu ne ku yàlla jox faatitul kitaab mu ne amatut mu ne nga ngay ngay yëkkati leneen suufeel nga lu yàlla maanaam yëkkati yëkkati lu yàlla suufeel kon doomu aadama dafay gëm yàlla waaye loo loo gëmul lu boo bañee nag ne doo jaamu yàlla rek yàlla dana la tàggatal ngay jaamu a man ittaxasa ilaahahu borom xaalis nga nekk seen jaam di leen bu ñuy génn sax yaa leen di tëjal seen buntu oto yi bu ñuy añ yow la ñu oo yaa leen di wettale bu ñu weetee yaa leen di waxtaanal bu ñu soxlaa kuñ jëwante yow la ñu oo nga leen di jëwal ci seen saali yi bari na fi dell ci dëkk bi booy dem mu sànni la benn dix mille wala cinq mille ngor kenn du ko jaay ni dafay diñ sa diñ ñi te fexeel ba maanaam dara rab ko bu bu mu tax nga mën koo yàq mu ngi noonu te kooku sax du la daf nawle mu ngi noonu bu ko defee itam am na koo xam ne moom matériel lay jaamu am na koo xam ne oto lay jaamu am na ñoo xam ne matériel rek ku am matériel danañ la ci am na koo xam ne sax tey jii boo amoon oto bu bees te kër la ñuy yenn ngir bëggu giñ bugg oto te gis nga sa xol bi lépp loo xam ne moo tax baa gis li mu daan wax yal na yàlla feesal xol yi maanaam ak yàlla yàlla feesal loxo yi ak àddina gis nga yàlla bu jiitoo sa xol bi dara mënatu mënatu fees sa xol bi loo am rek da ngay jàpp ne lii ci tasarufaatu yàlla yi la jóge ko am na koo xam ne tey boo fi wàcce oto sa kër lay yenn sa oto bi rafet na sa nangam ci lay ne ndax moom matériel la bëgg am na koo xam ne maanaam salon rek la bëgg salon bu bees bu nekk kañ bu génn rek dana wax ne dana ci am wala sax bu ko mënta am ku ko am da ngay gis diw ñeenaa ko xoolal saalam bi ni mu rafetee diw ñeenaa ko xoolal télévision bi ni mu rafetee kooku boo ko yéegee boo ko yëgul kooku matériel lay jaamu dafay dugaale ci araayta mani taqasa ilaa ilaahu waa awaahu kooku bànneexu bakkanam mooy matériel am na ñoo xam ne matériel seen addina yëpp loolu la ñuy wax téléphone bu ñuy jokkoo maanaam ban télé génn ban nang du ma tudd nag benn turu salon waxoon naa la ko képp ku bugguma lay jaayal sa salon rek na nga jokkoo service commercial bu ko defee ñu ñu publicité la maanaam sa sa sa marchandise ci ci TFM religion ci tafsirul quran bii ñu def di émission leeral mu ngi noonu kon am na ñoo xam ne matériel la ñuy jaamu mu ngi noonu kon am na koo xam ne itam jigéen lay jaamu am na am na koo xam ne heure bu nekk moom mu ngi xool dir at mu ne dana seet ku mu war a takk mu ngi dugg ci Facebook bu duggee daal ki muy xool di yànk bu rafet wala xale bu jigéen boo xam ne rafet na mu mën a seet yónnee ko maanaam message mu jox ko message bu ko defee itam kooku delloo ko message mu fexe ba am numéro moom daal ku rafet rek dana la jéem a takk am na ñoo xam ne noonu la waaye nag jigéen ñi mënoo leen a jeexal bu dee jeeg bu rafet nga ne da nga ko takk jànq bu rafet nga ne da ko takk loolu du baax ci yow te takk kañ ñeent nga mën a yem fi ñuy mujj rek dañuy obligé di fase rek mu ñoom daal dañuy fase daanaka awa bi rek moo ci am saal ñu ci des ñëpp dañu leen di fase ndax dañuy ku rafet rek ñu ne dañ la takk kook nag dafay dugaale ci araayta mani taqasa ilaahu wa awaa kooku bànneexu bakkanam lay jàmm ndax jigéen mooy bànneexu bakkanam kon am na koo xam ne jigéen ju rafet mooy bànneexu bakkanam am na koo xam ne téléphone bu rafet wala oto bu rafet wala bu saloo bu rafet loolu lay jaamu am na koo xam ne borom xaalis yi lay jaamu am na koo xam ne lii ndamam tukki rek fu toll mu ngi tukki dem naa Dubaay dem naa Amérique dem naa nangam dem naa nangam sàngam wala hôtel sangam laay dal doomu aadama yi loolu nag dafay dugg ci araayta man ittaxasa illaa awaa kon alquran lu ne lay wax moo tax yàlla mu ne araayita ndax du ma la solo man ittaxasa maanaam koo xam ne jàpp na ilaahu bànneexu bakkanam eh, jàpp na laa wax ilaahu yàlla yàllaam xawaaw muy bànneexu bakkanam lu bakkanam bëgg rek mooy yàllaam mu ngi noonu de afa anta ndax yow te kon da nga nekk wakilan di aji wattu alay ci waajo ndax ku topp bakkanam yow mënal nga ko dara déedéet yàlla mu ne am tax si bu ndax da ngaa njortu ana ak naka li gën a bëri ci nit ñi yes moo dana danañu dégg maanaam li gën a bëri ci nit ñi dégguñu waar de aw yàqiloo na wala ndax da ngaa ne dañ xelu amuñ xel de yàlla mu ne in hum déet ñoom ilaaka lanaami dañoo mel ni juri kër bal bàyyil hum ñoom addalu ñoo gën a sànq sabi leen ci yoon de yàlla mu ne maanaam yow yonent bi képp koo xam ne day jaamu bànneexu bakkanam kooku mën a too koo soppi ba du jaamu bànneexu afa anta takuna alayhi wakilan mënoo ci dara yal nañu yàlla musal ci bakkan toujours mooy sonal nit mu ngi noonu doomu aadama yàlla daf koo boole ñaar bakkan ak ruuxu ñoom ñaar nag dañuy xeex mu ngi noonu bakkan lim bëgg jigéen joo xam ne lewu ko mu ànd ak moom mu ngi noonu bakkan lim bëgg xaalis fu mu mën a jógee baax na waaye na am xaalis rek mu ngi noonu bakkan bëgg na lekk goo xam ne gu neex la donte fi mu jógee baaxul yooyu yii yii la bakkan bëgg bakkan bëgg na di xuus ci deru gor ñi mu ngi noonu bakkan bëgg na di yàq deru nit mu ngi noon bakkan bëgg na di tappale mu ngi noon bakkan bëgg na di sàcc yii la bakkan bëgg mu ngi noon roxo nag yim bëgg roxo bëgg na kuy julli roxo bëgg na ku dul jëw maanaam roxo bëgg na kuy sikar di wax laa ilaha illallah ndax sa roxo gi bañ koy dugal sa jëmm ji pour mu mën a dugg malaaka yi dañ koo sikaral laa ilaha moom rek moo koy dundal képp koo xam ne maanaam mu ngi mu ngi sikar lu bari rek roxoom gi mu ngi dund waaye képp koo xam ne mu ngi ci maanaam place fowukaay fu ñu oote foofu rek nga dem yaa ngi ci pecc mi yaa ngi ci misig bi yaa ngi xuus deru gor ñi maanaam yaa ngi ci sàngara bi yaa ngi ci jigéen lii nag lu samay kàddu de yàlla mooy wax ci téeréem bi ndax yooyu la bakkan bëgg kon sa bakkan bi dana kontaan ci yow waaye ku la dàq julli waxtu wi juróom maanaam koo xam ne moo la dàq naafi la koo xam ne moo la dàq sikar surtout sikar lu baax la muy tudd yàlla was yàlla mu ne waskurulaa kathiran laallakum tuflihun na ngeen tudd yàlla lu bëri ndax ngeen taxe mu ngi noonu jaamu yàlla yëpp am na lim am na waxtu ba mu des sikar sikar amul lim lu la neex nga def boo doon def ay million baax na mu ngi noonu amut waxtu itam loolu mooy dundal sa ruuxu gi doomu aadama nag bu demee ba ruuxum gi gañe maanaam bakkanam rek kooku mooy nit ku baax moom laa alquran di wax ne ulaayika humul xayrul bariya am na nit ñoo xam ne nit ñu nit ñu sell lañ maanaam dañoo set wecc ndax seen ruux gi gañe na seen bakkan mu ngi noonu bakkan bi ak ruux gi léeg-léeg sa sa sa bakkan bi man léeg-léeg sa ruux gi man ni ñu koy xamee nii rek la am na bis yoo xam ne yow koo mën a doon da ngay gis ne tey daal damaa sawar ci julli tey daal damaa sawar ci wirda tey daal lu baax rek nga gis waaju ju wax xamal ne bis boobu ruxum gi moom moo gañe léeg-léeg yenn bis yi maanaam da ngay gis da ngay sawar ci jëw léeg-léeg yenn bis yi mën na nekk maanaam sa xel mi saytaane man la si jigéen ju lew rek la sa xel mi di nekk léeg-léeg yenn bis yi ci sàcc rek dóor marto rek trian am lu nekk nu mu ñëwee rek baax na sax xel ci loolu lay ne maanaam léegi doomu aadama ci noonu lay nekk bu ko defee nag bu waaye nag koo xam ne bakkanam roxom moo ko not kooku moo gañe mooy ulaayikumul xayrul bari ah koo xam ne nag moom bakkanam moo not kooku moom dafa mel ni juri kër yàlla mu ne moo gën a reer juri kër ndax juri kër li muy def noonu la ko yàlla moo ñaale wax naa la ko yàlla dafa bind bakkan boo xam yàlla dafa bind mbindeef moo xam ne maanaam dafa mat yàlla rek a mat waaye yàlla moo ko tër bi ci matam nga muy malaaka malaaka du lekk du naan soxlawul sëy soxlawul dara fu mu toll rek muy jaamu yàlla kooku dafa mat bu ko defee itam yàlla bind koo xam ne dafa ci muy bàyyi ma xar mi boo fi tegoon dugub léegi maanaam dana dem lekk ko du moom xamul ndax moom lañ ko tegal wala tegaluñ ko bu gisoon xar mu góor mi gisoon xar mu jigéen léegi ñeme na koo tëb loola nag ji góor nit bu ci àggee moom moo gën a ci bàyyi ma ndax kee mu ngi koy def te amul xel te yow am nga xel góor goo góor gooy gis jigéen ju mu gis ñemee naa tëdd ak moom maanaam alal ju mu gis ñeme na koo jël jëfandikoo ko kooku moo gën a réer bàyyi ma moo tax alxuraan ne inhum ilaaka lan am bal hum addal sabilan yàlla mu ne dañoo mel ni juri kër mu ne sax moo leen gën a ñoo gën a réer ndax ñoom am nañ xel am ñee amuñ xel kon doomu aadama mu ngi noonu sell googu da nga dem ba ci ulaay ko mul xayrul bariya lépp lu yàlla bind nga gën koo sell malaaka yi sax boobu la yaa ngi di gën ndax ñoom seen mbaax gi sonnuñ ci bon gi da nga ba maanaam inhum illaa kal an'aam doomu aadama nag bu yàlla demee ba koy wax ne comme juru kër moo gën a yées juru kër kon émission baa ngi doon di wax ci doomu aadama fi yàlla jaar moom moo tax yàlla mu ne araayta ndax dooma solo mani taxa sa ku jàpp ilaa woo maanaam yàllaam xawaaw muy bànneexu bakkanam de bakkana ngi noonu de moo tax alquran ne wa amaa man xaafa maqaama rabbi wa naa nafsa anil hawa nal inal jannati yel maxwa yàlla mu ne képp koo xam ne xeex naag bakkanam ba lim bëgg du ko jox bakkan lu maanaam lu naqadee xeexal la li bakkan bëgg lu neex rek la bëgg te moom fu mu ko mën a jëlee rek baax na kon yàlla nañu yàlla maanaam notal suñu bakkan yi yàlla nañu yàlla suñu roxo yi yàlla na roxo yi gañe bakkan loola nag sax ci sikar rek di tudd yàlla rek tudd yàlla daal moo lay yóbbu ci maqaama yoo xam ne yu kawee kawe kawe la mu ñu noonu boo demee ci kaasiful albas booy tudd yàlla mu ne laa yasaalu taskuru wal wal xijaabu tatamassaku doo denc di sikkar lu dul ne kiiraayu dox sa diggante sa borom maanaam mu ngi xotteeku benn par benn doomu aadama hiina ala fil xijaab juróom-ñaar fukki junne kiiraay moo dox digganteem ak boromam loolu nag dara mënu koo dindi lu dul sikkar lu bëri yaa ngi ca laa ilaaha illallah ba yaa ngi sa allah allah allah ba yaa ngi ca xeet yi nga xam ne yaa ngi ca salaatu ala nabi nga xam ne noonu la fooree ci dog xijaab kiiraay yi nga xam ne mooy tax doo xam sa borom kon nañ góorgóorlu ci sikkar pour suñu roxo ji mën a nopp bu ko defee am na beneen bu des muy jëmm jëmm moom lu koy dundal rek mooy lekk sa jëmm ji lekk rek moom boo lekkee ba suur rek sa jëmm ji mu ngi dund diw defar sakkaraaw gi mu ngi noonu jëmm ji dund na sol yére yu rafet waa est-ce gi mu ngi dund kon nañ fexe di dundal suñu roxo gi ci jaamu yàlla roxo jaamu yàlla rek ko mën a dund mu ngi noonu yàlla mu ne avant ndaw yow yonent bi tekkoonu da nga nekk xale yi du kuñ wakkil xale yi ci moom maanaam doomu aadama ndax yow lañ wakkil ci moom ba gi ah kii yow lay wakkil ci moom ba nga xam ne yow yaa war a wattu bakkanam de déere de am tax sab wala da ngaa njort anaa akasaroom naka li gën a bëri ci nit ñi yees moo na danañu dégg dégguñu waar de aw yàqiloona wala danañu xelu da ngaa njort danañ am xel amuñ xel de inhum deen ñoom ilaaka lanaami dañooy mel ni juru yàlla mu ne bal bàyyil um ñoom adal ñoo gën a sànku maanaam sabilan ci yoon ñoo gën a réer juru kër de bu ko defee mu ciy teg alam tara ila rabbika kayfa madda sila walaw sa la jaaloo saakinan su ma jaal naa samsa alayhi dalilan su ma xabat naaw ilay naa xabdan yasiran yàlla dafay wax ay kéemtaan yoo xam ne moo ko daf mu ne boo ko bañ a weddi am na yum daf te mu ne loolu soriwul la mu ne lim daf maanaam loolu soriwul la mu mu ci andi misaalu ker alam tara ilaa rabbika kayfa madda si la waaye sama caméraman mu ngi may signalé ne euh, minutes yu tuutee ci des minutes yooyu nag dañ koy jël andi ci laaj yi rek ndax buñ commencé alam tara ilaa rabbika kayfa maddasi la taawil bi dafay yàgg yàlla mu wax ker ni mu amee solo ak ker fi mu jaar moom ak ni ko yàlla di yoore ak ni mu koy xëccee ku bugg a xam loolu nga topp leeral bi di ñëw bu ko defee kon ñu ñëw ci laaj yi ñëw ci mbind mi buñ fi ñëwati continuer ci firi mi surtout furxaan kii mu ne dafay laaj mu ne koo xam ne dafa ànd ak soxnaam ba pare sangu ba sangoo ba ba ñëw toog maanaam rek am lum tooy mu gis ne loolu mën niyu la loolu la ma laaj ndax dana sang dafay dem sanguwaat moom sax dafa maa wax ne dafa sanguwaat waaw boo demee ci fuqaaw yi dañoo wax ne bañ waxee sangu li koy waral mooy kii gént ba dara génne ci moom dana sangu ku ànd ak soxnaam dana sangu mu ngi noonu kuy tuub dugg ci lislaam dana sangu bu ko defee nag bu dee dafa ànd ak soxnaam bam sangoo ba pare am lu génnaat ci moom du baamtuwaat sangu bi loolu la xalil wax li tax moom foofu li ko taxoon sangu du lu génn waaye li ko taxoon a sangu mooy rapport bi ànd diggante ak soxnaam mu ngi noonu kon foofu génn bi taxutoon mu sangu waaye li ko taxoon a rapport bi la gannaaw rapport bi am na sangu na ba pare dara génnaat ci moom da koy raxas lii nag boo demee ci muxtasar Cheikh Khalil moo ko taalif di ku bari xam-xam di wax ci feq yi mu ci mu koy balluloo ci mu dawana mu dawana di ko balluloo ci mu wataa bu imam Maalik nga xam ne ay hadis la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xalil dafay wax ne kaman jaamaha faxtasala su ma am naa mu ne koo xam ne dafa jaxasoo soxnaam ba pare sangu gannaaw googu ñu gis ma nii kooku du baamtuwaat sangu bi te walaa yuhidu salaata mu ne julli ga sax du ko baamtuwaat bu doone dafa sangu ba pare ba mu ànd ak soxnaam ñëwee sangu na ba mu sangoo gannaaw ba mu sangoo mu julli mu julli ba pare gisaat fa mën nii dafay raxas lool rek waaye du sanguwaat du baamtuwaat julli kaman jaama fax tasala suma am naa wala yuhdi salaat noon la ko Cheikh Khalil waxee mu ngi noonu kii tam mu ne dafay laajte xam nga kuy julli mu ne gis na ne dañuy dafay jël dara di teg ci kanamam dañ koo sopp yonentu moo ko jàngale mu ne nag dafa taxaw kii ci saalum sax la ñuy mu ne dafa yeew benn fas di tax di julli ci kanam léegi nag mu ne fas ndax muy yeew loolu mën naa nekk saatiram loolu dana doy ba jël dara di teg ci ole kon muy jël sees ndax mu ngi julli ci kanam fas dafa yeew fasam wi ab saalum saalum la loolu du mën a nekk boo demee ci lawal ci Cheikh Khalil dafa wax ne laa daabatin daaba mantu nekk saatir wala ijirin waahid wala benn xeer bu ndaw boo xam ne àggut sa maanaam li ko dalee sa ciwonciw ba si sa cati baaraam yi fa la war a àgg bu fa àggut mëntu nekk saatir waqatin wala benn rëdd nga rëdd rëdd wu gudd loolu itam mëntu nekk saatir waa wa ajnabiya ak jàmbur bu jigéen nga jël xale bu jigéen taxawal ko mu taxaw sa kanam loolu mantu nekk saatir waaye nag mu ne wa fi muharam xawlaani Cheikh Khalil mu ne ute nañ bu dee ne ba ngay julli da ngaa jël jigéen joo xam ne comme ça sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen nga taxawal ko sa kanam pour bu la kenn mën a romb a bokk a romb comme ni nga ko doon defee ca sées ba wala ca leneen dañoo utee borom xam-xam am na ñu ne loolu bu dee ne ko sa ormanté la loolu na mu taxaw sa kanam nekk sa saatir am na ñu ne dagan am na ñu ne déedéet dagan loolu mëntu nekk nit li ngay jël daal du nekk nit waaye lu ci mën di am daal fas moom mënu koo nekk wala mbaam muy nekk sa saatir mu ngi noonu bu dee jigéeni jàmbur mënu koo nekk waaye bu dee sa ormanté la sa mag la wala rakk la ndax mën na koo nekk wala mënu koo nekk borom xam-xam yi wax ne ñaari wax xawlaani la lawal indi kon daal li gën a wér jëlal benn sees wala nga jël benn bant sarta bi na nekk loo xam ne lu laab la lu mu gàtt gàtt na am ci diggante fii maanaam ba fii li ngay teg sa kanam muy noonu kii itam mu ne li muy laaj mooy maanaam hmm, kii mu ne jëkkëram daf koo jiite léegi nag ci Tamba la ñuy laajee dafay laaj mu ne ndax bu juumee moom mën na koo sàbbal ndax moo koy jiite buy julli waaw dana dagan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne man naa boo say an fi salaati fal yaqul subhanallah koo xam ne dara da ko gaar ci julli na wax subhanallah fa lañ koy génne léegi nag boo demee ci masabu maali ñu ne kon dagan na jigéen bu ko góor jiitee buy jamaj maanaam mu ne ko subhanallah da ngaa juum comme dafa waroon na toog jog taxaw mu ne ko subhanallah boobu loola du yàq dara dagan na boo xam boo demee ci xalil mu ne wa tasbiu rajulin aw imraatin li loolu dina dagan waaye nag laa yu safiq na jigéen daal li koy tere mooy du tàpp léeg-léeg nga gis jigéen di koy def góor di ko jiite wala muy tàpp lupp ba wala muy tàpp moo xam mu noonu loolu dañ koy tere wala yu safiq na jigéen buy julli léeg-léeg sax nga gis koy oo muy tàpp lupp ba loolu moom dañ ko koy tere kon daal mën naa wax subhanallah waaye tàpp moom du ko def wala yu safiq na loolu Cheikh Khalil wax mu ngi noonu kii nee na dafay laaj koo xam ne dafay julli maanaam tàkkusaan léegi ba muy julli tàkkusaan kabar xelam dañ ne tusubaar da ci yoroon xabla salaam lan mooy àtte bi waaw te xabla salaam liñ jàng ci fekk mooy boo jegee ci palaas ba walla mu yàgg sujjóot ba dafay yàqu te bu matee ñetti sujjóot sujjóot ba bu mu yàqoo julli ga dafay yàquwaale léegi nag ci tàkkusaan la ko fàttale la ko fàttale ko julli gu njëkk ga dafay yàqu loolu mu ne fakk saakiroo dafa mel ni ngay julli farata fàttale ko benn ponk bu desoon ci julli yo comme ça kuy julli tàkkusaan fàttali na julli tusubaar am na sujjóot bu fa desoon wala rukoom bu fa desoon wala faatiya noonu la mel yàqu bu buñ ne yàqu na nag ñaara mën waa ji bu dee ci ràkk bu njëkk bi la te fasoo gut daf ko fay dagg ci sëlmal mu ngi noon bu dee kenn kuy julli la wala imaam dafay sëlmal foofu rek bu dee fasu na nag mu indi beneen ràkk mu nekk naafi la xalil mu ne wa nuddi ba isfaa in aqada rakaata wa ilaa raja bila salaamin mu ngi noon boobaa dafay dellu fa koy emale kon daal noonu lay demee waaye nag wa attama naf la wa qataa xayruhu loolu la Cheikh Khalil wax kon daal ñett rek la mën a doon bu dee ci fàttaliku xabla salaam maanaam kenn nit la euh, te te rakka bi fasoogut rakka bi mu nekk fasoogut te kenn kuy julli la fala koy daggee daf xabla salaam bu paree door a armal bu dee ne imaam la moom itam taraaka bi fa fa koy daggee daf ko bu paree door a mën a jiite mbooloo bu dee nag dañ laa jiite moom nga fàttaliku ko da ngay waaye nag julli kasaara lay nekk ànd imaam ndax dañuy bañ nga dagg julli ñu foog ne da ngaa bu julli gi jeexee yow nga fay julli gu ga boo faree fay doo fay door a fay julli gu ñaareel loolu moo ne ci fekk bu dee nag xabla salaam bii mu fàttaliku ci naafila la la comme ça doon julli naafila fàttali na farata bi am na ci xabla salaam boobaa dafay continuer naafila ji ndax moom bu indee benn raak rek bu indee beneen beneen rek dafay sëlmal bu ko defee bu paree nag fay farata bi wa attama nafla wa qataa xayruhu loolu la Cheikh Khalil wax gannaaw bu doon ne ci farata la naafila la koy mottale gannaaw ci naafila ji la ko fàttali te raak bu njëkk ba fasu na ca naafila mu ngi noonu dafay continuer raak bu njëkk bi indiwaat beneen raak bu sëlmalee dam daf xabla salaam bi noonu lay demee kii tam dafay laajte foofu sax la ñu tënkee fafa fan na fan na fàttaliku farata ci farata ak la ci naafila dafay laaj laajte itam koo xam ne dafa jàpp ba pare lelli ay wexam walla mu wat karawam wala mu dagg sikkiñam ndax loolu dafay jàppaat wala dafay yàq njàpp yàqut njàpp di ndax xam nga euh, sa we bi ba nga jàppee lelli ko walla jàpp wat sa karaw gi xam naa li ko ciy jaaxal karaw gi nga xam ne masaawoon na ko loolu taxul njàpp li yàqu wa man xalama zufruhu aw alaqa raxsuhu wa fi lixyati xawlaani bu dee sikkiñ la am na ñaari coow am na ñu ne ku jàpp ba pare wat sa sikkiñ borom xam-xam ñenn ñi ne da ngay dem masaat foofu ñenn ñi doo ko masaat wa fi lixyati xawlaani moo na ci feq waaye bu dee wee la moom jarul ngay jël ndox di fa dugalaat wala bu dee bopp bala jarul nga koy masaar waaye bu dee sikkiñ bala dafa am coow ñii ne da ko masaar ñii ne doo ko masaat ay waxi borom xam-xam la kii tam dafay laaj mu ne dafa nekk ak benn goroom géejawaay la dëkk léegi nag da koo mere mu ne paa bi daal dafa ñëw rek ne ko sa jëkkër fase na la léegi mu oo jëkkëram téléphone jëkkëram ne ko fasewuma la léegi nag paa bi taxaw ne ko yow yaa ko wax ne ko fase nga ma maanaam coow loolu daal nan la ciy génne waaw xam nga boo demee ci fuqaaw yi dañoo wax ne fase jàmbur comme njaayam jàmbur Cheikh Khalil mu ne wa talaaqu fudulihi ka bayhihi wala si sima maanaam heure bu la nit waxee ne sa jëkkër fase na la te dañuy sa jëkkër bu ñëwee rek lañuy xaar bu ko wéyalee mu wéy bu ko wéyalu itam fase mu du wéy mu ngi mel ni njaayam jàmbu rek boo fi jëlee caméraman caméra diw dem jaay ko nit waa ji ñëw bu dee waa ji nangu na liggéey ba dafay wéy noonu mu jël xaalisam bu nangu tam dafay dem xàccee ko mu ngi noonu wa talaa wa talaaqu fuduli yu ka bayhihi waaw kon daal ku ñëw ne sa jëkkër fas na la bu tàng jot nga sa jëkkër mu ne fase wut ko waxam ji la ñuy dëgg bu ne fase na la fase ma tàbbi wa ka bay kabayxi walla si ma dana war bu ko jëkkër ji warale boobaa lay war kii tam mu ne maanaam dafay laajte mu ne koo xam ne dafa julli maanaam timis ba pare bam ba mu salmalee timis ba pare xelam door a dañ mu ne julleegu tàkkusaan mooy àtt bi waaw néew faat yi boo demee ci fuqaaw yi dañoo wax ne dafa war ànd ak fàttale ko kon li muy def rek dafay dem jullihaat tàkkusaan toftale ko dafa war bu paree ñëw jullihaat timis ga noonu lay def néew faat yi fekk matul juróom benn julli rek da ko war a toftale waaye bu matee comme ça boo xëyee ba jant bi so te julliwoo benn julli donte gaay ga teew na sax suba ngay commencé ba ci gaay gi kon nag kii ba ñu waroon a njëkk euh, tàkkusaan moo war a njëkk timis tartib bi dafa war dafa bokk ci néew faali kon dafay dem jullihaat tàkkusaan bu pare jullihaat timis noonu lay masala bi di demee kon li ñu mayoon ci laaj mu ngi noonu ñu nuyu suñu caméraman xaali di nuyu équipe production bi yëpp hélas Maaw Cissé Aja Ngay Siré ak madame Gissé ak Abdou Khadir mi ñu àndal ci liggéey bi ak suñu monteur Khadim Ndiaye ak Ibrahima mi ne ci machine bi laaj yaa ngi noonu 77 665 90 22 am na yu bëri ñëwagut 77 665 90 22 liñ bind ci laaj yi bëri na waaye lii lañ amoon ci waxtu ñu ngi ñaan lu Youssou bu baax allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim